réponse Malick concrète Malick d'abord yow ce procès là nga xam ne au début quand ça a éclaté l'affaire a éclaté gars jéem nañ la cee dugal parce que am nga ku la jege koo xam ne dañ jàpp ne c'est lui l'instigateur principal alors nan nga dundee dénouement bi waaw non xam nga man boobu dama def euh, je pense que am na benn euh, interview bu ma def sur la sur la RFM je peux le citer parce que man dama toog deux ans affaire bi mu amee dama ñëw j'en ai parlé une seule fois mooy dama tukki ñëw ñu invité benn émission ma dem wax ci li nga xamante ne moom laa ci xalaat mu concerné sama sama quand je dis wolof day wax sama doom quand je français ma ni sama neveu man ak baayam ñu bokk ndey ak baay musul dox musul naan musul sàcc xamuñu ko ci dara jàng alxuraan wàcc ñëw vraiment di liggéey daan dooleem lañ ko xamale musul fen musuma ko c'est-à-dire s'il y a s'il y a un gosse qui n'a jamais eu de problème c'est moom bon mbiru affaire boobu mais comment il s'est retrouvé oui mais mais euh, mais mais mais xam nga xam nga xam nga doo xam man li ma xam man man laa man man man Malick Mbaye man euh, cette histoire là bu ñu ma ko indiloon man sur mon adversaire politique le plus coriace euh, dama koy teg ci suuf danaa ko lijjante neneen wala dinaa ko def mais man man loolu laa gëm te li ma gëm noonu le président Macky Sall gëm ma lay wax lenn gis nga cette affaire là ñu bari dañ wax non Macky Sall mënoon na euh, benn moment euh, arrêté wax loolu mais xam nga affaire bi dañuy bëreet le principal concerné Ousmane Sonko mu ne Macky Sall moom a complot fekk na boobu premier sortie bi président def ci affaire bi dafa wax ni c'est une c'est un dossier c'est c'est une c'est question vraiment gênante yéene ko sax kenn vraiment parce que xamu ci dara Dame Mbodj c'est moo gën a porté le combat autour de, de cette affaire là am na vidéo bu mu def mu ne ñaar ñii Malick mbay xamu ci dara parce que bu ci doon xam dara ni nañ koy def du jël moom doomam bi ko jegee di ko wax ni ko demal dugg ci mu ne ci sàll bu fekkonte ni état mooy nas lii dina ko nas de plus sérieuse mais pour en au fait fait yi mooy di nekk nit moo am fu mu dem li ko fa dal dal ko fa li may wax ni sama le bout de phrase la man la donc je pense que aboutissement bi ni ma ko dundee mooy dina xaar ba justice wax li mu ciy wax ma génn wax li ma ci xalaat pare ci et j'avais dit la dernière wax na si li lim si wax pour une partie mhm. euh, en tout cas pour une partie il y a plus de possibilité de euh, d'interjeter appel Euh, donc disons que euh, am na lu ñu ci taxawal donc yow aujourd'hui lan moo ci sa sentiment j'ai pas de sentiment si c'est je trouve cette affaire assez dégueulasse c'est je peux pas en parler quoi franchement cette affaire de diw violé et tout nga ñu toog ak suñu doom war leen expliquer lan mooy viol lan lay mais mun na j'ai vraiment pas envie d'en parler j'ai vraiment je veux dire que alhamdulilah rabbil alamin nag mbir mi dafa tax ma xam man man laa wax sénégalais yi fi ñu ma teg parce que coow li dafa bari ma noppi par problème jël sama doom nag muy ki ma ko seqal ma uuf ko mu toog buñ ko wooyee mu wuy yi bi mu waree takk jabar mu dem takki jabar gérer sa femme ma ni ko bon mu ngi noonu mais tu vas répondre mais jàpp nga ne moom porté wu ci benn porté wul benn. no mënuma non non non non non du ci xam nga xam nga boo booy wax responsabilité rek da ngay wax ni que euh, bu ma bu fekkonte ni man xam nga man bu ma xamoon bu fekkonte ni man amoon naa. une idée de ça du ci dugg donc bu ma lay wax ni la que duma responsabilité ou pas par pas ça ce qui est important mooy di nekk mbir mi am na euh, woo nañ ko fu ñu ko woo dem na wuy ji wax na cette affaire là yegg na fi mu yegg mais comme je te dis li ma ci sant yàlla mooy euh, sama der yàqu ci benn yoon mooy di ne que même dans l'autre camp les gens disaient que ah Malick Dey ce qui est sûr xamu ci dara parce que franchement c'est une affaire à laquelle Alors. personne ne veut être